فاز الذين حافظوا على الصيام Touba Bois ministère yi soxna Ami Niane nekk fii ci Touba Ndindi boo weesoo monument bi rek mel ni ko jëm dara la bu Touba Ndindi moo la fee sa loxo càmm dañuy liggéey lal bu ànd ak coiffeuse ak armoire deux ba sept battant dañuy liggéey ay port lu ci mel ni porte saal wala ay porte sàmbur dañuy liggéeyee xeeti bant yu ñoree fii ci suñu réew lu ci mel ni dimb wala wel ci wàllu bant yi jóge bitim réew nag am na Falake am na Djibouti am na yettani saa Touba Bois mu ne Serigne Soxna Ami nekk fii ci Touba Ndindi gaaw leen jokkoog séeran bii di Serigne Modou Samb 78 389 67 78 moo leen di may seen naafile de jour waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon mbokk ñu nekkaat a gen ci guddik fukkeel ak juróom Serigne Soxna Mbàkke nee na ku ci julli juróom bu ci nekk fatiha ak isa jaa benn yoon ak qul huwallahu ahad fanweeri yoon ak juróom des na des na nangu ak julleem ak wooram te lépp lu mos def ci ay ñaawteef des na ko ko soppil aw yiw te xaraf wu ci nekk des na ko ca tabaxal dëkk bu mag ca aljana mel na ne it ku leel mboolam xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokki julliw gàtt la waaye gu am njariñ la jërë ngeen jëf